J'ai décidé d'entreprendre une série pour euh, rencontrer tous les acteurs citoyens et les politiques qui se sont engagés dans cette euh, lutte, non pas pour euh, la personne d'Ousmane Sonko, mais pour la préservation de notre démocratie. Et j'ai choisi de démarrer cela ici avec nos amis et frères de Yanamar, Vous savez que représente quelque chose d'extrêmement important dans la lutte citoyenne au Sénégal. C'est le doyen des mouvements citoyens, non seulement au Sénégal, mais j'allais dire même en Afrique de l'Ouest. Et une fois de plus, Yanamar a été à la hauteur de sa réputation en s'engageant dans ce combat pour la préservation de notre démocratie. Nous avons tenu de longues discussions Malheureusement, l'atmosphère ne permet pas de les restituer. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous réfléchissons tous sur un agenda, un calendrier pour la République, pour le Sénégal, pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais dans l'immédiat, nous continuons à formuler les mêmes exigences, dont la première, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques de Macky l'arrêt immédiat également des persécutions, des arrestations qui continuent. Euh, l'arrestation des nervis de Macky Sall et leur traduction devant les tribunaux, mais également la réparation des dommages causés par les meurtres, mais également les blessures graves. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale, les guides religieux, pour leur dire que Macky Sall continue malheureusement dans sa trajectoire dictatoriale. Nous, en tout cas, au niveau du mouvement de défense de la démocratie, nous avons fait poser des actes forts. Nous avons accepté de lancer un appel pour que la tension baisse. Nous avons accepté également de relâcher un peu la mobilisation. mais en contrepartie, il n'y a aucun acte posé par Macky depuis lors. Alors, il sera le seul responsable de ce qui va advenir. Pas que des jeunes continuent à être retenus dans des géoles de Macky Sall. Il faut qu'ils relâchent ces là immédiatement. Je vous remercie. Je laisse M. Aliou Sall, coordinateur de la euh, de Yanama. dañoo ñëwoon euh, suñuy mbokk suñuy xarit Y nga xam ne ñëpp am nañ seen taxawaay ci réew mi ak ci Afrique ci lépp lu jëm ci défendre aar démocratie aar ak ak yelleef euh, wanewaat nañ ko tey ci li xew ci réew mi ci seen taxawaay bu rafet ñoo fas yéene woon dem ziyaare ji ñëpp ñi nga xam ne am nañ taxawaay boobu muy parti politique muy mouvement citoyen tey nag ñu dooree ko fii ndax ñëpp xam nañu Y'en a marre suñu wax mouvement citoyen Sénégal ñoom ñooy taaw bi kon waxtaan nañu waxtaan bu am solo lañ ci mën a wax ci tënk ndax gis ngeen ni fii waxtaan jafe na fi ba ci njëkk mooy dañuy continuer xeex bi parce que Macky Sall il faut que ñii nga xam ne teg na leen loxo te tegu leen loxo lu dul ci jaay doole mu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawee. ñii nga xam ne yónni nañ leen ñu ay Samba Boy ñoom ñu leen di fay ñuy continuer di dóor nit ñi ak di rey nit ñi il faut que Macky Sall ñu jàpp leen yóbbu leen ci justice daan yi war a am ñu daan leen ko ñetteel bi mooy ñii nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan wala ñi nga xam ne gaañu nañ ci gaañu yu métti il faut que ñu jox leen ndàmpaay ci nu mu gën a gaawee te ndàmpaay googu ñu kook Macky Sall kese waaye mouvement bi nga xam ne moo taxaw il faut mu ñëw bokk ci ñu koy saytu ñeenteel bi nag mooy euh, euh, lépp loo xam ne lépp la fa lépp loo xam ne dafa jë jëm ci ñuy dem di continuer di jàpp ay ndaw ba léegi tey ñu wax ni ñi ngi jàpp ay ndaw di leen yóbbu di leen tëj loolu tam il faut il faut que mu dañ fi tey loolu mooy li ñu waxtaane ci lu lu nga xam ne lu jàmp la am na loo xam ne nag ci lu gën a gudd la mooy yeneen point yi nga xam ne faram nañ ko keroog te lépp jëm ci démocratie amul lenn loo xam ne dafa jëm ci intérêt Aliou Sané wala intérêt Ousmane Sonko waaye intérêt réew mi la loolu mooy waxtaan bi ñu leen di gërëm di leen sant ci waxtaan moom mooy président Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu yi nga xamante ni moom moo tukkee ci waxtaan bi. dañuy daal rafetlu nañu torop euh, mouvement Y'en a suñu maqaan bi nga xamante bi ñu koy sos il y bëggoon doon benn mouvement citoyen bi nga xamante ne ay ndaw ak ay mag ñoo ciy booloo pour suñu démocratie mu gën a sax suñu citoyenneté mu gën sax état droit gën sax et que injustice sociale mu gën a wàññeeku ci réew mi et c'est au nom de ces mêmes principes la bi ñu gisee nguur gi mu yëkkati jël suñuy instrument wu réew mi muy justice bugg faagaagal opposition politique à travers Ousmane Sonko c'est au nom de ces principes la ñu jóg ñu ne du fi amee donc ci combat de boobu la ñu nekk di ci wéy ba gis ngeen li ci am yëpp gis ngeen tey jii nii en terme d'urgence nag du ma delluwaat ci loolu yëpp am na suñuy frère suñuy sœurs yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi leen di téye ci kaso bi ba tey dañuy xeex ensemble ak tous les sénégalais pour que ñu mun leen libeere ci li mu gën a gaaw pour que nervi ak ñëpp ñi nga xamante ni takk nañu ci yii am que nguur gi ñu pousser ko à ce li ci war ñu def ko ñi ci war a teg daan ñu teg leen teg leen daan et que ñu teg benn commission bi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni malheureusement ci xeexu peuple bi ñàkk nañ ci seen bakkan ñu mën a am ndàmpaay et que ñëpp ñi nga xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu aussi ñu mën ci am ndàmpaay mais au-delà de cet aspect-là yi nga xamante ni ay urgence la Sonko il s'est présenté à tey comme un citoyen sénégalais qui est venu discuter avec d'autres concitoyens sénégalais ci réew mi am nañu ay waxtaan yu am solo ci même perspective lan mooy war a mën a ah citoyenneté rek démocratie wu réew mi ak lépp li nga xamante ni soxal na ñëpp ñi nga xamante ni ay citoyen lañu am nañ ci ay waxtaan yu am solo voilà. non le plus important mooy bépp sénégalais fépp foo munti nekk bi amee ba tey yaa ngi naqarlu yaa ngi prier yaa ngi commémorer et puis euh, avec beaucoup de respect mémoire ñi nga xamante ni euh, Macky Sall boom na leen ci ci ci ci ci ci ci événement yi xew voilà donc jërëjëf en français donc c'était pour dire que c'est avec un plaisir que c'est avec un plaisir que nous avons atteint contre l'injustice au Sénégal. Et c'est dans ce QG-là qu'on a reçu ici aujourd'hui un concitoyen à nous qui s'est présenté comme un concitoyen qui est venu rencontrer des concitoyens pour discuter du pays. Parce que vous avez vu, pour notre démocratie et pour notre état de droit, quand ce qui est arrivé est arrivé, vous avez vu en toute responsabilité le mouvement Yanamar, au nom des principes qu'il défend pour la démocratie, a dit qu'il ne peut pas accepter que le pouvoir puisse utiliser notre justice pour éliminer en fait un, un, un opposant politique. Et tous les Sénégalais se sont battus pour que ce coup fatal ne soit pas porté à notre démocratie. Et vous, vous voyez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Mais on sait aussi qu'il y a des concitoyens à nous qui sont encore dans les prisons et certains sont en train d'être traqués et il faut continuer de se mobiliser pacifiquement pour qu'ils puissent être libérés. Même si vous avez vu, dans cet élan de pouvoir pacifier, nous on a fait beaucoup d'efforts, on a même suspendu des mots d'ordre. Mais vous avez vu du côté de, du pouvoir, il n'y a pas encore des actes concrets qui vont dans le sens de l'apaisement. C'est pourquoi on va vers des mobilisations pacifiques comme on en a annoncé, et la libération tous ces otages politiques qui sont dans les prisons, et puis que, toutes les personnes en fait qui ont perdu la vie dans cet événement-là, ces martyrs-là, puissent être indemnisés et ceux qui sont blessés puissent être euh, pris en charge. Que l'État puisse mettre en place une commission pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art. Maintenant, au-delà de ces aspects ponctuels, le citoyen qu'il est a pu discuter avec nous sur d'autres préoccupations liées à la démocratie, à l'état de droit et beaucoup de prospectives aussi liées au Sénégal. Voilà, merci beaucoup.